nee gis na ben way bu bind. ndax Sénégal. ndax Sénégal. dañ leena couvrir batay wala amnañ liberté. nee question bobu la waji laaj. sëñ Babacar lolou la laaj. ñu jëlee ñu ci ñu ñuy def. ñu li ñuy def waa waa Sénégal. wane ñu wane ñu. ba ñëpp yëg nga xam ni kenn doot du ñu doyee di ci kanamu. du kenn. ku ñëw ku ñëw ñu teral la. waaye suñu personalité dañ koy bàyyi ak ñun. te nee na loolu. mooy tax ñu mën defar suñu bopp. sunu responsabilité ñu mën ko dox ci anam bo xamni kèn kenn duñu geesuloo kuy dem bari loy gessu do ag fa nga jëm bayal haji Mansour sen mam ala innama al a'malu ala innama al a'malu bis sabri wat tuqa wala taltafit بل حادي Hadji Mansour dana ala innama al amalu bi sabri mboolem nga ag ci foog nga mu nek muñ kat wa tuqaa looy defit nga ci baye yàlla xel bo ande ak ñaar yoy ba nopi nak ne bul geestu ndax innal karima ghayur gor bu dëgmal yàlla day firte lamu la ligeyal sa rew nag dëgmal yàlla la kon neena bu len kenn tardel yeena ngi xol ci kanam visé wu rek ku len soxla na len dab waye bu mu motax sen mam mansour sen mam Mansour bu nit daan ñew ci mom fekk muy wacc di dem nga ni ko yalla ma yëkkati mu ni la ci yalla la jëm auto bi amna place kër gi amna neek ñu and dem wala nga tok xaar ma ba ma dem ba ñew waye duma wuñeku bo gisé lu bari ñu diko songu dañ ñu nga taxaw foo jëm bërëb sàngam laa jëm looy wuti damay doxi nàngam nga dem mu jël téléphone am téléphone ba jiitu la fa bala ngay àgg ñu pare ndax dañ lay gàntu wala dañ lay nangul moo tax ku ñu xam foo jëm nee na il faut xalifa yi fii metti na waaye fokk rekk taxawaay bu leen gestu bu leen xool nee na ku réew mi ñor dina ànd ak yéen waaye koo xam ni poosam moo ko ñor yal na yàlla saxal leen ci nee lii rëy na ci ñun lool waaye lépp nag ci làmmiñu xalifa bi lañ koy waxe ak famille bi te lépp ñoo ko bokk yàlla bu yàlla tas yaakaar amiin yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar nee na di ngeen dégg lu nekk xeebaate xaste tuumaal lépp di ngeen ko dégg ndax yàlla la ndax yàlla la